assalamu alaykum mbolo mi ma len nuy yeen ñep di len masawu seen choono di len jaale itam ki nga xamante ne bii ñoo ko waaw ci commune bi fallu fi la juddo fi la yaro fi la magge nekk gor nekk talib Cheikh Ibra bu wer am jom ay param am ci mom yaakar lol. waaw bim bim cietale soxna bim ñewé ak légui ci 15 jours rek lay lay lay tol toll ci sama yaakar waaw yaayam ak sama papa ño bokk ben nday kon koku sama rak la sama doomu la mu nekk taalibe Cheikh Ibra bu wér fàllu boo boo bëggee gis meram ñëwal fii ci daayira bi boo ñëwee daayira rek di nga gis meru fàllu parce que ku nekk ci daayira bi bëgg a bëgg bëgg fee di déconné rek da koy jaral mu toog ci daayira bi di jooy barki Serigne Saliou Mbacke waaw fàllu taalibe la nekk gor amut ak kenn xaar ma yàlla bëgg ñëpp bari kersa lool waaw kon nag ñun ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi tàllal ñëpp suñu loxo am na loo xam te dafa yomb Macky Sall Sénégalais yi ñoo war a wax ak moom nit di liggéey Sénégal fi mu nekk am jàng jëriñutu fi dara dara dara dara parce que da ngay jàng bay bëgg a dee ñu lay fetal yow ñi ngi la war a fay fayetun la nga génn di kaas même boo génnul sax ñu ñëw jël jël kii quoi xam am loo am tere bi jàppee nit ñi comme ay ginaar chaque année ah ay basir Faye ak ay Balla Gaye ak ñooñu ñëpp yéen ngi leen di dégg ñu leen ñoo xam te bi lu metti la seen mbokk yi ca du mujj fenn lima gëna metti du mujj fenn am na loolu dafa ñaaw dafa ñaaw Macky Sall nit ñi dañoo doyal ci moom sëkk sëkk sëkk sëkk surtout Patar gi nga xamante bi dafa fi dara ay Abdou Diouf la fi ñatt ñetti ñetti potolamp mo nekk Patar ñetti potolamp te avant muy jël nguur gi ñew na fi ni ñew na fi waaw wax fi wax jo xam politique kessa la fi wax dara lim fi wax dara amu ci waaw dafa am lo xam dafa ñaaw dafa ñaaw jóg waaw di tey après démb ci la ñu informé comme quoi que front dafa amoon université euh, Gaston Berger danoon réclamer seen ay bourse li nga xam ne ñoom ñoo ko moom ñu ko saraxuñ ko yelwaaluñ ko danoo jàng mérito bourse ñu leen koy fay du leen ko fay ñu dem bala le 15 fay ñu leen ko ñu ne dañuy dugg resto pour lekk te nit ki mënut a jàng sàmm lekk te que fanweeri dërëm ci leen tax ñu bom suñu doomu ndey fàllu seen nag as bu ñaaw at bi nga xam ne si laay ñëm rey nañ fi Balla Gaye rey fi Bassirou Faye peut-être man lay nekk mu nekk loo xam nga ko bàyyi te doon mu sedd mukk jamais ñun dañuy juste dañuy dañuy dañuy que xam nañ sax justice Sénégal c'est manipulé mais duñ leen may dara duñ leen may dara danañ xeex fépp soo gisee soo ñëpp génn parce que ñëpp koy naqalu parce que Fall dafa nekk nitu ñëpp nit bu baax dem teel a ñafe takk jabar bu yàggul mutu sax un dem daani dooleem ngir teral ay waajuram xoolal dëkk bi ni mel ci village la jógee dëkk bi à chaque fois damay wax ne ma ñun nu ñuy def ba émergé wu nu ñuy def ba émergé wu ay projet yu ne la may tegal maanaam moom ñu expliqué tey projet yooyu kan lañ koy àggale maanaam moom